asalaamaaleykum euh, mbokk yi ñuy déglu ci euh, Thiès Info ak euh, Thiès TV tey ñu ngi fii nga xam ne mooy Jaxaaw Jaxaaw nag tey li fi xew lu doy waar la maanaam réseau câbleur yi nekk fii ci Thiès.

def ginnaw bi nga xamee ne fekk nañu seen alal ak lepp lo xamné nek na ci seen liggéey jëlee nañ ko fi waye tamit euh, ñu jël ci benn euh, manam ab plan d'action dal bo xamné ne ñoom dañ leen di déglu ñu jox ñu li nga xamante ne moom lañ nar ak li fi jot xew. Moussa Diop la tuddu may président d'honneur GIE des câbles distributeurs bu Thiès. ma ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam. di remercier presse bi régional bi yëpp wuy ci nañ ñu ñi ngi leen di sant di leen gërëm. tey nag cees dañu xëy yeewu benn tubaab bu xonq cur ñëw ànd ak ay sénégalais ñëw dugg ci sunuy réseau yàq sunuy matériel du ma wax saisir sunuy matériel mais yàq sunuy matériel parce que bala ngaa saisir matériel jàmbur yaakaar naa ne justice moo koy décider juge moo war a décider ni dem len saisir ma tel bagage ñu dem saisir bagage mais li ñu gis tey ci Thiès liñu gis ci Sénégal tay mën nañ ko qualifier que ni c'est du grand banditisme mo am tay ci Thiès parce que ay nit dem recruter ay nervi ay mbeur lañu indi ay mbeur ay gros bras indi len ñu yara ay marteau cinq kilos Dougouti ci réseau yi ak seen pince ak ay pince coupante dagg toutes les fils yéen gis ngeen ba noppi ils sont été escortés malheureusement je dis avec la gendarmerie nationale notre gendarmerie nationale loolu moo ñu metti xamuñu nag ñun fan la ñu jëlee ñoom ordre pour mën accompagner des bandits pour ñu ñëw yàq suñu matériel je les qualifié des bandits parce que li ñu def affaire banditisme la kenn musul gis ay nit yoo xam ne yow su fekkee ni ñoom dañuy seet seen seen bagage fu ñu dugg gisuñu fa seen bagage mais yaa xëy nañ dem mais ñoom dugg nañu ci suñuy réseau gisuñu seen matériel ba noppi gàddu suñuy bagage yóbbu ni lan la ñuy seet produit canal amuñu ko ñun amatuñu produit canal musuñu ko am bëgguñu ko c'est fini donc ñoom ñu ne léegi comme léegi amatu leen produit produit canal ñun léegi lu ñuy wër mooy Astra Astra benn dëkk benn satellite la ndax da jàpp Astra wala jàpp leen Astra ak lan ak biin Astra lan la benn satelit satellite boo xam ne amul droit d'atterrissage au Sénégal nekkul Sénégal Europe la ne moom moo ñoom ñoo ko aarul ba mu egsi ci ñun te dañ ko waroon téye nañ ko téye Europe suñ ko téye Europe ñun duñ ko laal ba ci jot Astra amul droit d'atterrissage au Sénégal que ça soit clair bin sport beneen bi nee nañ bin sport la ñuy wër bin sport kat eh, eh, chaîne la boo xam ni qatariens yi ñoo ko moom ñoom ñëwuñu Sénégal egsi wuñu fi dëkkuñu fi arrosé wuñu Sénégal ñun bin yi ñuy joxe. ci escaf lañ ko que ça soit clair na l'air. pourquoi nous, nous escaf directement à ko Hein? hein su féké lool la nañ dem ci escaf Hein? voilà benen bi Nous ñun dañu convention ak l'État du Sénégal dañu am cahier de charge buñuy Nous respecté ñun benen bi moy chaîne yi ñuy joxe à part bin yi nga xam ne ñoom moom la ñuy réclamer si Africa moo ñu jox bin yi contrat bi ñu am ak si Africa mi ngi nii si Africa moo ñu jox chaîne yi ñuy dawal mi ngi nii on a un contrat en bonne uniforme soo leen paree ngeen xool ko beneen bi mooy ñoom Canal Horizon attaqué nañu nos amis cablo yi nekk Saint-Louis récemment ci période coupe du monde bi en l'occurrence M. Issa Ba ak le responsable de Peritel TV mi ngi nii dañ leen tribunal dañ leen dañ débouté décision baa ngi nous donc fait amuñu qu'on a ñëw à di ko def à Thiès ñun Nous ay jeunes lañu yi à Thiès Sénégal di liggéey honnêtement depuis que nous ñu dugg l'affaire du câble distributeur nous musuñu l'allié au Canal Horizon Canal Horizon au contraire mom moy pirate kat bu mag bi parce que mom moo doon jël yenn câble yi di len defal des factures de piratage facture de piratage yaa ngi fi danañ len ko jox ngeen xol ko ñoom wa Canal Horizon ñoom ñoo doon defal nit ñi ay facture de piratage ku ñu gis ngay dawa sen bagage ñu wola ni la légui kay légui da ngay fay chaque mois moyennant quelque chose so ñëwee jox len xaalis bi ñu bindal le ben facture de piratage Canal Horizon moy def loolu. au dos di Sénégal ñun nag ay jeunes sénégalais yi nekk fii di liggéey ñu ay étranger tubaab ñëw di yàq suñuy bagaa ànd ak ay doomu Sénégal ay mbër ñoom lu ñu bëggoon ñun ñu affronter entre nous ñun ñu xeex comme ñun su ko defee ñoom nga xam ne ay négrier lañu ñu taxaw fële di ñu seetaan ni négri yaa nga ne di xeex su fekkee ni sunu mbokku négri loolu lañ bëgg danañ ko def sax danañ ko def parce que envers les bandits, il faut être un bandit. C'est ça que je dis. Waouh li ñuy wax lu la dans 24 heures canal horizon mi ngi à Thiès su génnul Thiès su fi laalaatee beneen réseau fépp pour ñu bind canal horizon ci Sénégal là wax ñun danañu dem ñu parce que ni ñuy sur suñu réseau yi danañuy demee yàqee ko seen matériel point très waaw quatre réseaux la démantelé c'est à Diahou, à Grand Thiès aux HLM route de Dakar ay Mbourkat dem nañu gis photo yaa ngi photo yaa ngi fii danañ leen woon photo yi dem nañ ba gendarmerie même matériel ñu ngi ko def ci ay saaku wéer ko foofu gendarmerie photo nañ ko biir gendarmerie matériel yi mi ngi gendarmerie waa gendarmerie nag nee nañ leen ñu def inventaire suñuy bagage parce que ñoom ñoo ko yor nee nañ ñu suñuy suñuy suñuy entendre danañ def inventaire bi nous sax duñu accepter ñu entendre parce que amuñu benn këyit bu pas ni entendre on n'accepte pas ça c'est trop léger c'est trop léger écodeur amplificateur ay ampli avec ce qu'on appelle les dissenders. yooyu la ñu yore ci ñun et des modems et des disques durs externes nous modem orange ça dañ ko beaucoup orange Sonatel orange Sonatel ça saisir nañ ko. dañu bëgg attirer opinion eh, eh, nationale et internationale que ni ni li def c'est des voies de fait Lors moo tax ñu bëgg wax ak presse bi ba Souvent, suba dañuy déposer nos plaintes au niveau du procureur su fekkee ne nag dëkk bi am na yoon un ñu woo woo canal citation directe de koy yóbbu saisir d'un suñu avocat def nañu un constat d'ici euh, ba pare convention pour l'état état du Sénégal signé par un ministre de la République ampliation ampliation. ampliation ARTP Hein ah? euh, euh... primature Nous euh, avons des documents comme ça Les lan moo ci des kay dañ <laughs> a pas autre chose lii kay état bu jox ni la meun nga activité bi ngay def meun def légalement samon jox la de charge ni la monte ak lii sàmmonteel monte l'église, legli lan d'accord léegi li ci des contenu d'accord auto soko amé dem euh, defar auto bi mu am am lépp auto bi dafa essence pour daw moy réseau bi amna na amna essence pour daw essence ba ngi ni chaîne yi dawal

Au contraire, ils se cyclent sur nos dos. L'idée de c'est des vols organisés, je dis.